salaamaaleykum mbokki internet yi salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a la chaîne SD TV ah tey nag ñu ngi fii ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu wara a waxtaan li nga xamante ni moo di coronavirus ak li nga xamante ni moom président de la république jël 21 jours yi nga xamante ni moom la jox étudiants yi pour ñu delluwaat seen kër ñu tàllal suñu micro étudiants yi ñu wax ñu lan moo ci seen xalaat situation Sénégal actuellement alors euh, suite à la décision du président de la République le directeur du Coup, avec ses collaborateurs a tenu une réunion avec euh, les représentants d'étudiants pour voir euh, dans quelle mesure accompagner les étudiants par rapport à l'évacuation du campus. C'est dans ce sillage qu'aujourd'hui euh, on a même écrit un communiqué dans ce sens pour dire que le campus sera évacué à partir de ce lundi et les restaurants seront fermés après euh, le petit déjeuner. Donc, euh, pour l'accompagnement, nous avons pu voir avec les représentants d'étudiants, voir des bus de transport pour permettre à tout un chacun de pouvoir regagner sa famille. Et parallèlement, nous allons distribuer au niveau des bus des gels antiseptiques et autres flyers dans le cadre de la sensibilisation sur le coronavirus. ñu ngi lay delloo ziar sëñ bi. Adama tey situation bi nga xamante université mi koy dund nan ngeen ko jàngatee. situation bi doon La situation boo xamante dafa critique parce que c'est devenu mondial addina bi yëpp euh, feebar bii di coronavirus dafa de addina bi instant bii nii moo waral. suñ président Macky Sall tëj suñu école yi suñu institut yi euh, bi école bi gën a ndaw ba ci gën a mag yëpp tëj nañ ko ngir feebar bii di coronavirus. instant bii nag doon nañ lu ñu jaaxal jaaxal nañu pourquoi parce que ñun milieu bi ñu nekk nii milieu boo xamante ne dafa sensible il y a toutes les nationalités monde bi pays boo xalaat rek am na nationalité fii nii ci université bi kon loolu te feebar bi mu ngi jóge ci réew yu bëri fi toll nii nekkoon na Chine. jóge na Chine instant bi nii mu ngi rey ay nit ñu bëri Italie aussi y a la catastrophe ba mu ngi fa loolu daal moo tax instant bi nii ñu ngi tiit euh, Macky Sall tamit tiitaange bi ñu bi nit ñi yëpp tiit moom la tiit ba muy jéem a aar ay doomi réewam moo tax mu tëj université yi pour ku ne ñibbi sa kër euh, nga toog fa ñu xool la situation comment la régler. tey décision yi nga xamante ni Macky Sall jël na ko pour tëj université ak école yi. pourquoi daara yi dégguñ ko waaw euh, di décision bi d' abord ñu ngi koy rafetlu c' une sage décision quand même. parce que vu que maintenant la pandémie continue de propager di di law ci aduna bi mbir la mo xamanteni décision bi dañ koy rafetlu tay bo déglee bu baax euh, xam nga gaay dama ne duñu dégg wax le président il a bien précisé école ak universitaire je pense que man jël naa daara yi ma boole ko ci biir école yooyu ba rawatina sax information yi am ñun jot nañ ne daara yi fu may wax ak yow ni yi nga xam ne moom la ñuy wax les daara moderne fermé nañ comme nu école yi fermé. Diack membre de la cellule de la Croix-Rouge de Lucat. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la prévention et dans le cadre aussi de la sensibilisation à l'endroit des étudiants, mais aussi à l'endroit de la population estudiantine. Donc, euh, comme vous le savez, euh, le président de la République a pris la décision de fermer les écoles, et le campus social et le campus pédagogique. Pour cela, nous sommes aujourd'hui là pour accompagner les étudiants dans le cadre de la sensibilisation pour la pandémie Covid 19. situation bi ni ñu ko dundee tey mooy euh, gis nga ni teykat kat ñi ngi éléments yi ñi ngi nekk ci terrain bi ñi ngi waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo nekk euh, étudiants yi pour jox leen message bi nga xamante ni moom la ñu war a yóbbu yóbbal lañ lay jox yóbbal bi mooy leen wax ni kat lii boo leen ko defee yàlla mën na def mën ngeen a mucc ci nga xamante ni mooy jàngoro bi ñuy wax Covid 19. beneen bi des mooy ñoom ils vont servir de relais.

jël ko jëf ko ci seen loxo ba mu am 30 secondes ñu def saabu bi def ci laal seen loxo ndox d'abord jël saabu bi laal ko ba mu am 30 secondes ci seen loxo ñu doog a raxasoog ndox bu ñu defee loolu ba pare nag ci la ñuy jël euh, li nga xam ne mooy solution hydroalcoolique bi nga xamante ni moom la ñuy wax alcogel jël ko utiliser ko def ko ci seen loxo beneen bi ci des mooy. ñu jéem a éviter lenn ku nga xamante ni am na lu mu yëg ci yaramam parce que déjà coronavirus ni ñu ko xamee mooy benn syndrome bu ñuy wax syndrome respiratoire aigu sévère la boo xamante ni dafay accompagner avec sëqët yaram yuy tàng ak yeneen yoo xamante ni ñoom la koy écom maintenant ku yëg loolu sa yaram rek ñu wax la bul dem directement hôpital jéem a la woote ci numéro vert bi nga ko muy 800 00 50 50 nga woo leen wax leen nga yëg nii da parce que bu ñu nekkee ci jamono boo xamante ni jamono épidémie la wala jamono pandémie la boo yëgee li nga xamante ni peut-être moom la ñu wax ni kat loolu mooy euh, li li mooy mooy euh, li nga xamante ni mooy jàngooro bi dangay ngay jéem a woote ci numéro boobu bañ a déplacé wu beneen bi ci des mooy ku ciy sëqat nga jéem a sëqat ci mouchoir ba pare nga sànni ko ci poubelle bi wala nga jéem a jël fi nga xamante ni mooy sa kër kudd nga jéem cee sëqat wala sa biir nga dugal nii sëqat bu fekkee da ngay utiliser masque aussi bul jël masque boo xam ne toujours da nga koy utiliser boo ko ba génne ko rek bu wóon la masque bi kat amatul ñàq na wala dara nga changé ko utiliser waat beneen masque foofu daal la ñu toll ci information yi nga xamante ni moom la ñuy jox étudiants yi te gis nañ ni kat joxe information bi yombalal nañu ko parce que étudiants yi da ngay gis ni kat bu ñu jox information bi ils sont attentifs ñi ngi déglu li ñuy wax té ñi ngi laaj aussi té lool dalal na suñu xel dalal na suñu xel pourquoi parce que déjà ñom ils sont conscients que ni maladie bi euh, am na. mesure bi nga xam ne président de la république jël nako ñun dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu la mesure on ne parle plus d'épidémie, mais on parle de pandémie. Et euh, là, la, la, situation actuellement est, extrêmement critique. Donc, si nous disons, le président de la République, une mesure pour nous les universités, c'est juste pour aider les populations à plus les étudiants à rallier leur domicile et que nous aussi nous en faveur voilà que la euh, pandémie de gagner répondre sur le territoire national. Parce que l'université doit être un lieu sensible. Donc, on aussi avec les restaurants, les amphithéâtres et autres là, il faut plus de 60 soixante mille quatre vingt mille personne dañ fiy tase par jour donc lieu de rencontre la lieu de rencontre la boo xam ne tey par exemple nekk di fi dajale ay nit bëri bu fi kenn rek amee épidémie bi euh, dafay gën a répandre day gaaw si biir territoire national bi loolu aussi comme ni ko gisee rek dagaal boo xam ne dafa am solo quoi parce que jamono bi ñu toll ak euh, feebar bi nga xam ne moom la ñuy Covid 19. li euh, muy propagé te xam nañ ne université euh, c'est un rassemblement duñu wax sax maanaam euh, population la mais c'est un monde en miniature donc ça veut dire que bu fi duggee yàlla ñaanuñ ko yàlla mais bés bu fi duggoon mën na dem ba presque adduna bi yëpp da siy jël de le plus rapidement possible donc dogal bi nga xam ne président jël na ko ñun dañ ko saluer malgré que ñu ngi woon dans en état d'examen ñu ngi doon waajal examen yi lépp santé avant tout quoi. Bon, donc euh, on a fait que saluer cette initiative nous euh, les Donc euh, aussi ñaan que mu de quoi Sénégal gars des comprendre parce que président yàgg na di wax ci li nga xamante ni moom mooy cette pandémie là coronavirus bi nga xamante ni mu ngi continuer di lëmbee adduna bi comme nous mu koy defee au niveau de l'Europe mais Sénégal niveau bi mu fi bon xam nga am na si loo xam ne kenn mënu ko prévoir lu meuna am ba meuna am tay moy ji nga xamanteni président bam mu sentiré na menace bi mu ngi continuer di propager wu jël na décision yi nga xamanteni mom la njitu rew wara jël moy lan décréter donc yu gaay di wax un plan d'urgence manam tek tay lu am mat ci 1 million 1 milliard quatre cent cinquante ko ki nga xamanteni mom moy le ministre de la santé pour que ñu lutter contre cette pandémie là donc kon japp ma ne lu yéex la japp ma ne lu yéex la ndax yag na ci di wax yag na ci di def état bi mais lim def état bi mu ngi doo jot euh ñu ngi tok fi depuis euh, ce matin ba légui amuñ bis buñu yobbu yóbbu wara dem dañu mujjé fanaan rek malgré que né euh, directeur bi décrété né ne maanaam ñun ñëpp ku ci nekk war na quitter les lieux avant 18 h voilà ñun donc buñu ñu amul lu ñu rek fi lañu ñu obligé fanaan ba suba ak jamm inshallah tay amna li nga xamanteni mo xew Sénégal di coronavirus Macky Sall jël ci ay décisions. Abdoulaye Sow di accompagne étudiant yi pour ñi ñibbi Kaolack est-ce que amna bis wa avant tout d'abord dañuy rafetlu décision bi nga xamné président jël nako pour euh, tey jii tëj école yi ak université yi pour trois semaines euh, si domaine boobu tey jii mun nañ wax ne directeur Koudou woote na réunion woo responsable. responsables yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans les différentes facultés euh, ne day jël en charge tey jii li nga xam ne transport étudiants yi nga xam ne dañuy ñibbi seen kër yi mais il s'est vu que méthode bi man bokk en tant que président d'une amicale localité rafetlu ma ko parce que tey jii luñ dégg mooy que ne. Euh, à travers les différents départements département bu nekk day am trois bus loolu lañ déggoon quatre bus lañ déggoon quatre bus sax département bu ne day am quatre bus mais depuis ce matin ñuy fi te huit heures la ñu heure de départ ñun toog nañ ba h heures gisuñ dara en même temps aussi euh, ñu toog ba moment yi ñuy wax ak yow muy quinze heures gisaguñ lu bus pour le département de Kaolack département de ñor aussi benn bus ñu ngi wër département Guinguinéo xam nañ sax xaw ma xamuñ sax ba xam amagum nañ benn kon cela veut dire que méthode boobu noonu tey jii nekk na méthode boo xam ne wax dëgg yàlla nuñ ko jëlee baaxul parce que tey jii benn affaire localité suñ koy def yaakaar naa waroon nañoo waxtaan ak responsable localité yi mais tey jii gis nañ ne waxtaanuñu ak responsable localité yi dañoo ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable amical facultaire yi pour ñu gérer euh, affaire bi. moom euh, nañ xam ne li ci jiitu mooy sensibilisation. parce que mënuñ ne ñun ay étudiants lañ ba pare te duñ sensibiliser suñu mbokk yi ci li nga xamante ne mooy Covid 19 maanaam ñu tuddee ko coronavirus. Euh, li nga xamante ne tey euh, moom lañ ci gën a saytu dafa mel ni genre grippe la rek genre soj euh, ku am lu mel noonu rek yow yaa war a njëkk aar sa bopp te aar sa bopp mooy aar ñi nga aar ñi nga nekkal. nga dem ci hôpital wala district bi la gën a jege ñu saytu la xool kon ñun tey en tant que étudiant par rapport ak décision yi nga xamante ne jël nañ ko. Euh, Macky Sall jàpp nañ ne tey décision bi mu jël euh, waroon na ko mun a def bu yàgg ndax moom mooy suñ président de la république dégg na euh, réew yi nga xamante ne ñoo ñu ëpp doole fuuf di tabax hôpital ci semaine ñun amuñu doole boobu amuñu kattanu def loolu noonu tey ñooñu ñooy tëj seen école ñooñu ñooy tëj seeni i frontière ñooñu ñooy tëj ñooñu ñooy ñooy ubbi kon tey su Amérique demee bay tëjal frontière am ay Europe ak ay affaire Euh, Macky Sall yaakaar naa ba mu waxee prévention rek li mu waroon njëkk a def mooy tey jii dëkk yi nga xamante ne ciblé woon nañ ko bu mu amati benn mbindeef boo xamante ne dafiy ñëw parce que euh, dégg nañ suñu maam ne ko na jëli sénégalais yi nekkoon Chine indi leen te nanguwu ko kon comme nanguwuloon loolu tey waru waruloon nangu keneen jóge ci dëkk boobu noonu difi ñëw. ñun loolu dañ ko koy wax parce que question loolu tam question politique la te bu fekkente ne ñun suñ position étudiant lañ taxaw nekk ay am na ci loo xamante ne président dañ koy xaar ci moom. te tey jii tànk yooyu yaakaaroon nañ ne moom moo ci war a njëkk a taxaw mais loo wax ñu ne frontières yi dañu poreuse loo wax ñu ne nàngam nii loo wax ñu ne nangam ne le te yaakaar naa loolu tey war na mun a dëñ ndax ci aire bi ñu toll moom moo tax. mais liggéey bi loo si rafetlu euh, kilifa diine li may li may li may rafetlu mooy moom dafa bàyyi ba kilifa diine yi wax li ñuy wax ba pare ubbil ko yoon pour mu doog a mun a ñëw parce que dégg nañ Touba prononcé wu na yeneen kilifa diine yi prononcé wu nañ neñ nañ dogal bu président euh, munti jël par rapport ak fébar bi pour tëj di wala pour ay regroupement ñom paré nañ pour and ci lolu kon ñom ci bopam wax la bo xamantene dañ ko sànni président parce que dañ ko xaar lu yàgg ci mom defuñu ko ñu wax ko kon euh, di jaajëfal aussi kilifa diine yi ndax ñoom aussi ay acteur lañ yo xamantene dañ bok ci jeu politique bi kon tay ji Macky Sall bu xaré ba ñooñ diko wax muy def dañ koy rafetlu ni rek comme sénégalais yépp niñ koy défé mais li nga xamante ne moom moo war tey mooy ñu gën a sensibiliser nit ñi parce que dañ yaakaar ne coronavirus kese euh, moom mooy li nga xamante ne tey moo mën a dal nit ñi ci ñàkk raxasu parce que da ngay gis nit day soj sax waxuma coronavirus de soj bi nga xam ne moo gën a garaaw nit day génn ñandu génn yéeg dugg ci bis bi jàpp ko mu ñu wàllan keneen ñëw jàpp ko mu yóbbu ko ci ay këram mu wàllu ko wàllu ay kon coronavirus bu amee Sénégal fii jéeya la te mu coronavirus musiba la balaa la ndax bi nekkoon Chine bi nekk fii moo ko gën a am doole fukki junne yoon bi nekkoon bi nekk fii moo ëpp doole bi am Chine docteur yi ñu ngi koy wax kon bu leen ko caaxaanee coronavirus du loo xamante ne dañ koy caaxaane euh, beneen bi ci topp mooy par rapport ak rafetlu par rapport ak Macky wax waxin la rek mais li ñuy xaar ci moom bëri na ba tey campagne de sensibilisation bi nit ñi xamaguñ sax coronavirus mooy lan. sensibilisation boobu dafa war a gën a daw du ay takk leen masque jàppee leen seen loxo seeni i coude ak affaire yooyu loolu mbiru tubaab la. ñun da ngay wax ak ñun loo xamante ne nit ñi gis ko nit ñi xam ko ñun loolu la ñuy xaar télé yeeg média yi waruñ toog cinq minutes yoo xamante ne sensibiliser wu nit ñi ci loolu. te ba tey regroupement yi ñu ngi am Macky Sall moo war a édifier nit ñi déjà rek nee na dafay tëj campus bi 21 jours ba pare 21 jours mu dugal si jusqu'à nouvel ordre loolu tâtonnement la. Lol, tâtonnement la vaut mieux fermer le campus jusqu'à nouvel ordre def comme ñep parce que 21 jours xamul ndax feebar bi day yok wala feebar bi day wàññeeku mom xamuko ko xamul lolou xamul nu muy démé xamo xamagu ci dara kon bu né fermé naa ko jusqu'à nouvel ordre lolou day relancer wat wax ji sénégalais yi ñu ngi xaar ci président buy wax ak nit ñi mu wax len lu leer nañ. en tant que doomu Nioro tay yow bo delloo bo boo delloo ban ban ban ban ban euh, liggéey nga wara def concernant coronavirus. En fait, si je suis Nioro, ce que je veux faire, c'est sensibilisation. Mhm. Comme ce que nous di wax ñu sensibiliser buñ démé lool lool buñ bu rek lañ koy dañ koy wax inshallah mhm. parce que luñu luñu luñu luñu wara wax la mhm. buñ ko waxul tamit dañ ko wara wax mhm. kon ñun ñun ñoo fi représenter suñu localité parce que ñoo yo fofu c'est un peu arriéré xamuñ lu bari ci coronavirus té fièvre bi dafa graw lool motax tax instant bi nii dañoo yàkkamti dem dëkk ba dox gis suñu parents gis suñu suñu mbokk yëpp ndax sensibiliser leen ci fièvre bi jumtu kay mom mënuñu ko mënaguñ ko am comme niñ ko bëggé mais ñi ngi euh, ñi ngi collaborer avec euh, service médical bi nga xamante ni moo nekk ci UCAD ñun démembrement euh, croix rouge la ñu fii ci université Cheikh Anta Diop lépp luy activité médicale rek ñun ñi nga ñi ci nekk di di di di di gor gorlu diko ko ak service médical di liguey liñ ci am bi ñu ci matériel bobu am nañu ay euh, comme li ko wax solution hydroalcoolique am nañ ko am nañu quelques masques ak euh, li nga xamanteni moy ay flyers ak ay affiches yo xamanteni ministère de la santé moko ko joxe woon pour ñu jox ko nit ñi pour wax leen ni leen kat nit ki kat boo jangal jàngal mën koo ci wax mën nga montrer aussi image image day jangalé donc euh, yooyu lañu am pour l'instant te ñi ngi ciy jàppandi donte doyul nag bu ñëwoon mu gën a baax mais ñi ngi wax ni rek liñ fi amoon depuis sa matin parce que étudiants yi nekkoon ci université ñoo bari ay kaari kaar ba ñu xëyee ba tey ñu ngi fi 7 heures du matin la dem ci terrain bi te depuis boobu ñi ngi fi étudiants yi ba tey ñi ngi nokk di di yéeg ci bus yi dañuy gis nga éléments yi dañuy yéeg ci bus yi kala bala ngay yéeg ñu defal la alcool gel nga raxas say loxo

nga am taxaway bo ci war am bu jàllee aussi nga am taxaway bo ci am bi ci ñëk moy kaaraange ñu ngi tollu ci phase prévention té ñu ngi koy def phase bi nga xamante ni mooy la prise en charge aussi des malades ci cellule de communication bi nga xamanteni gouvernement bi def nako am nañ ci ay représentants suñu représentant de la communication ma nga fa Fally Sadio Fally Fally Sadio euh, docteur Niass aussi ma nga fa donc pour wax ni kat am nañ fa ay représentants ci cellule de communication bi nga xamanteni gouvernement bi tek nako en place beneen bi ci dess moy Croix-Rouge yamul fofu rek amna plan yo xamanteni ñu déclencher ci région yépp pour alerter élément yi nga xamanteni ni ñoo nekk ci comité yépp ñu juk taxaw pour euh, mettre en sa nek en alerte ba luñ fa détecté rek li nga xamanteni moy mooy cas yi ñu mën ko taxaw xam ñun suivi bi aussi amna na Croix-Rouge ci nek contact yi am ci éléments yoo xam te ni Croix-Rouge yoo xam ne ñu ngi ci beneen bi des mooy au niveau de l'hôpital Fann aussi il y a des éléments de la Croix-Rouge qui sont là-bas pour accompagner les les gens qui sont là-bas aussi donc Croix-Rouge moom taxawaayam ci euh, wergu yaram dafa nekk taxawaay boo xamante ni ca tàmbali ga la ci diggante bi ak ci muccanteel bi. mot de la fin mooy lan nañu wax nit ñi kat ñu gën a conscient xam ni kat feebar bi lu existé la des fois da ngay dégg nit ñi naan ah feebar du rey noir feebar bi du dal nit ku ñuul loolu lañ doon wax dal la nit ku ñuul nee ñu feebar bi bon dañ ko avancé nii rek amul waaye dañuy wax nit ñi kat feebar bi lu am la donc nañu gën a taxawaat jàkkaarloog feebar bi ñu daan feebar bi li ko ministère de la santé waxee rek ensemble nous vaincrons parce que bu kenn yaakaar ni mënu laa dal wala mënul dal sa mbokk wala mënul dal koo xam ñun ñëpp kenn ku ci nekk mënut mucc ci feebar bi donc nañu ànd rek xeex ko. jëlee ko fi mu gaaw fee jógee gis nañ li am Chine gis nañ li am itali donc bëgguñu loolu mu am suñu dëkk donc dañuy ñaan mbokk yi rek ñu gën a teewlu xam ni kat feebar bu lu la ñu taxaw ñu ànd ñu vaincre ko incha allah. effectivement donc yaakaar naa lii tey ku nek mo wara don médecin boppam mbir mi comme nuñ ko gisé garaaw na loolu waaye ñi respecté li nga xamanteni mom moy mesure préventive yi nga xamanteni le ministre. euh c'était tout pour aujourd'hui ñi ngi won fi nga xamanteni modi diwanu université Cheikh Anta Diop temple du savoir euh dégg nañ kilifa yi li nga xamanteni mom la wax ak étudiants yi dégg nañ li nga xamanteni mom lañ wax par rapport ak décision bi nga xamanteni ni nguur gi jël na pour toj université étudiants yi ñi am nañ bis ñi amaguñ bis lolu mo fi nekkoon kon jaajëfal leen ba beneen inshallah allah rabbi SDTV